mbokki internet yi ñuy amaan mbégte contentement di jàkkaarwaat ak yéen waaye mbokk yi ku ne ne Baye Mandiaye moo woote tey open press ñëw fekk fi ay doomi waaye écrit waalo ñi nga xamante ni bu amee combat mook ñooñu ñoo koy waajandoo ku ci mel ni Thiat bu waalo yaakaar naan kenn doot ko présenté ci làmb Thiat bégg naa la siyaar Naar Fall siyaar naa la di nuyu say caméraman yëpp di nuyu assistance yi teew yëpp ah di ñaanal Baye Mandiaye numéro 2 suñu borom may ko ndam ndax sonn na si combat bi te fi mu nekk dafa métti quoi ñoo ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam lu sedd guy ak képp am combat écrit waalo ñoo ngi ñaan suñu defal ndam bu baax a baax a baax a baax nii waaw. mais tey ngeen am adversaire boo xamante ni yaakaar naa Albarka Kairé ci tolof tolof yi ngeen nekk ni ci la nekkoon yàlla dimbali ko mu am combat daan su ma jumul mengu moro la mujj daan yéen ngeen tegale ñaari defet loolu est-ce am lu def ci yéen. waaw ginnaaw moom génn si tolof tolof waaw waaye maa maa ngi wax ne nuyoo ma nag maa ngi nuyu nag ma fan staff bu caat bu waalo bépp naan gars yi ma nan ma chaque jour lan may woo ma wax caat bu waalo bu combat yi toll Pape na ma adversaire bay bëgg a dee bay bëgg a dee man damaa xamul lamb ji léegi ay tapata fi nekk wala léegi ay lu fi nekk man lamb ji xamul lu mu demee instant bi ñu toll naar. dañ la jox ay yoo xam ne neen jëluñ sa man ñun seet ñëpp amul benn boy bu mu seet mu mu daw res. Pape Sarr Gueye na ma seet na 90 adversaires ku man pourquoi man wala man damaa deful defagul dara si làmb wala. wala làmb man dama see amul cër wala te làmb tax ma bàyyi sama activité yëpp. man looloo ma métti moo ma jaaxal nii quoi te nit ñi di ma jàppal di ma jox seen xaalis di ma jëkkati seen alal di ma def di ma jox bu dul làmb bu dul làmb di ma dimbali. waa léegi mais ñu ngi fi doon dégg sa digganteeg euh, taxe bu seeraas. waaw man looloo ma jaaxal lu ko daw man lu mu lu mu daw loolu takke ay mbëran ay xale ñoo war a mel xaar day xaar ma xaar dañoo ñu bëri lamb ñun confirme ba ba ma d'accord yaakaar na man mi pere naa Pape Sarr woo ma naan ma xaw ma naan Serigne la boo xaw ma lan man sama Serigne yéen kër ma maire bi moo may ñaa sama yaay. mais jamono yooyu pare woon nga pour bëre takk bu seer. waaye man pare naa bëre ku dul man lu mu gën a a di jigéen maa arrangé man pare woon naa. sama ak waxaale woon ba jubóo ba d'accord ba lépp. bu taxee ba xëy sol blouson moo des mu yàqu laa la wax xëy sol mais sa diggante ak Tony Junior tam. man bëre naa pour ñëpp ku sama man amul caat bu waalo mbër mi mër ci làmb man ku suñu entraîneur ne waaw damay bëri man làmbay sama métier su ma mënta daan ñooñ damay teel a bàyyi bëri dégg nga ma man benn booy du ma cor ko cor ko yàgg cal këllëkkale du ma ñeexu kenn te lu waaye ñeex ma lekk ko waaw yow mais ñu gis Gaston taxawal kalaaf boo xamante ni caat caat gisoon na boppam ci ci kalaaf. wala waroon dugg man foofu laa bokk barki Mouhamed foofu laa bokk. sama nga pour dugg ci man Abdoulaye Khane Ndiaye man ci kalaaf boobu fa laa waroon bokk. fa laa waroon bokk sama morom. lan ngay foofu laa war a bokk. nañ ñu dimbale ngir yàlla sonn nañ dañoo bàyyi suñu activité surtout Abdoulaye Khane Ndiaye dama lay lancer message liggéey doon teet daam xaalis di liggéey ay daal lamba tax ma bàyyi lépp da may dimbali sama carrière ndax nit bu jëlee lépp wékkaloo yaakaar da nga koy waaye ay dama lay wax combat ngay taamu ñun boobu ba léegi ñooy bëri ay combat woo dañuy jox ay combat yi avancé loo dañoo sonn boobu ba léegi nii nii nii nii dañoo sonn waaw mais maa ngi sant nag Mbaye Gueye bu baax a baax Mbaye Gueye heure bu ma ko wooyee day yëkkati alalam jox ma Mbaye Gueye directeur bu Omar Sané Mbaye Mbaye Gueye da ciy jàpp bu Déthié Fall Mbaye Gueye da ciy jàpp bu baax a baax paasu gàmm ak lépp damay jox di sant bii jàlloo sama xarit sama nit heure bu ma jàqee su ma demee këram mu jox ma dara maa ngi sant maître dan bu Abdou Maître Jalikan suma grand sama lépp maa ngi koy sant bu baax a baax di sant grand papa yi sa Italie Amet États-Unis maa ngi sant gars yëpp di sant ñu ñaanal baax Ama Dia nag dimbali ma ngir yàlla li Ama Dia borom mbaaje taxawoon na ma kodo bu ne Ama Dia borom mbaaje pël taxawoon na ma kodo bu ne waa mbaajo laay wax sa dëkk bi lëmb taxawoon na ma kodo bu ne maa ngi ma dara di sant leen bu baax a baax di sant waa syndicat laay sama grand Baba Ndiaye sant sama xam loo mën a dégg waaye sama membre bi moo tax